dañ koo bind histoire la Kouthia da koy joué xam ngeen Kouthia moom ndaanaan la da koy joué su paree may may itam li ci aaya alxuraan ak li ci alxuraan wax hadis mais dama koy toj mu leer na yu jóg yu ma jóg dem suñu li am solo mooy weeru koor la bu ñu wax lu ñaaw bu ñu def lu ñaaw nañu ci sàmm wante ak darajay weer wi ndax nag nit ñi toog dog di la seetaan ngay waxoo yu di wax yu xamadi yooyu la ci gaañi sàmm wantul moo tax sénéra mais bële seen araange fi woon de du ko laal de. ah mais papa boobu déggoon nga ci ne de parce que neewoon nañ la tax nga doon bàyyi Abou Bilal muy def yenn. non non non mais ab boobu amuloon problème xam nga nag euh, xam nga itam Adja ba rek maa ngi wax ne dafa am loo xam ne ci parole lañ koy génnee damay wax ak yow nga xam dafa am loo xam ne ci yëngatu mouvement ci laa koy def nga xam ko mais loolu nag ñaar maanaam ñaari yëpp moo ci ànd man damay bàyyi ku caa def mouvement bi. xëy na xale bi xamul même li même li nga yaakaar ne ñaaw na sax bu mu ñëwee dama la koy rafetalal dama la koy indilal boobu amuloon problème mais nag buñ ci boolee yenn waxu ñaaw yi wala wax yu vulgaire loolu baaxul ci théâtre vraiment rafetul moo tax seen ara aaye ko mais amuloon benn problème bu juróo